di ñu seetaan dañuy daal di dem ba Touba daal di ànd ak Baye di Diall bëgg fàllu Baye bisimilah ñu bàyyi la nga doxal sa invité. asalaamaaleykum. mbokki ngi fi. bu fekkee da nga may libre téléphone bi nga dindi ko. am naa numéro mu ko de. waaw monté woo itam écouteur. déedéet. waaw baax na waaw lu tax waaw waaw demal demalal demal. voilà. dikk na. bisimilah. bisimilah salaamaaleykum wa rahmatulah. mbokki auditeurs ak auditrices yi déglu rajo Baol Média. yi Mbàkke caabi. ñoo ngi ci Daaru Minam. fas yéene ànd ak yéen émission ci. ñuy wax Baye Thierno Touré di magum lislaam di mag moo xamante ne ku yàgg a topp Baol Médias la koo xam ne ku bëgg Baol Médias la di taalibe bu mag ñu fas yéene ànd ak moom ci li nga xamante ne mooy màggal Tuubaa gi ngir waxtaan ko maam Thierno Baol Médias da laa dalal tey nga nuyu bokk yi ñu doog a dugg ci waxtaan bi waaw bismillahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin rahmaani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraatal mustaqima siraatal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim jërëjëf Baye Cheikh ñu def waxtaan ci def bi nga xam ne mooy màggal Tuubaa incha allah kon Baye Thierno màggal Tuuba nekk si na incha allah suba jàmm mooy bis bi waaye te jii ci bis bi la ndax sëñ Abdoulaye moo waxoon ñu waajal ko ci teeru màggal ko gunge ko kon Baye Thierno sëñ Tuuba day koo xamante ne ker la waaye mel na amoon na jëwriñ jëwriñ joo yaatal di jëwriñ ju farlu yoo xam ne bu ko tudd tudd ki nga xamante ne moom Seexul Xadim muy maam Thierno Ndamal Darou di leen bëggoon ñu tàmbale ak moom ci àll ba am ak lépp rek ñu doog a waxtaan. waaw jërëjëf Baye Ndiaye maam Thierno Birahim mooy doomi Maamoor Anta Sali ak soxna Faati Isa Jóob bokk ci sëti Sëriñ Mataar nu ba Jóob Kokki ah nit nag mënoo cee waxtaan ci waxoo taarixam maam Cerno Birahim mi ngi gane àdduna mille huit cent soixante trois mi ngi fi bàyyi ko mille neuf cent quarante trois muy juróom ñett fukki at mooy rakk ji nga xam ne Sëriñ Tuubaa nee na mosuma tàggali koog moom ci ndaw mosuma tàggali koog moom ci mag nee na itam Ceerno day yaar laa xam ne moom daa ko cee fekk waaye lu dul yaar yi maa ko cee ji ak fii ngor ji loolu moom Sëriñ Tuubaa ne ko cee fekk muy ko taxaw moom nag ndax boo xoolee dëkk bi ñuy wax Daaru Muxti mi ko sanc 1912 ci ndigalal Serigne Touba Xaadimu Rasuul wax nañu ne ba mu koy sanc ñu ngi Mbàkke Kajoor Serigne Touba ne ko Ceerno mu ne ko Mbàkke mu ne ko na nga takk aw fas fas nag bul ko dàq bul ko téye bàyyi ko mu dox waxtu wu doxee ba nga xam ne xool nga sa jant bi mu tiim sa digg bopp soo xëyee na nga ko wutal mandarga lii maam Thierno Ibrahima takk fas wa jóge Kajoor bi mu dikkee ba tolloo fii Daaru Muxti nekk tey mu xool heure boo ko sëñ bi waxal mu tiim boppam mu mandargaal ko wax nañu ne li mu waroon su mu demee ba tolloo uh, benn bidd fi la taxaw di walka mel ni na nga dem maam Thierno fi wutal mandarga waaw ba barjal moo fa nekk ay rab ak lu nekk fa muy àll bu kenn tëju loolu da koy wutal mandarga wax ne de ngeer bu mu romb damm ko bu ngeer ga woowee ëllëg bu dikkee xam-xam jaar mu delluwaat ci Mbàkke Kajoor wax sëriñ bi ne ko ah la nga ma waxoon day bi ma jant bi tiim saa bopp de xam naa ne ku ko nattan ak dëkk ba ñuy wax Tuubaa dana jege xaajale mu ne ko mbaa ceer na fa xam nga ko mu ne ko mbaa misaal naa ko ndax day def njaar gu romb njaar gu tooy gu ma romb damm mu ko. mu tibb suuf jox ko. ne ko ceer na mu ko mbàkke mu ko dëkk boobee day tuddee na ko tuddee na ko def mufti kon am na ñuy wax mufti waaye yàq la mufti la dëkkaru muccukaay yi. ne ko nag foofee de ceer na soo toogee lu ma la fa fekku daa ko amul sëñ yaakaar naa li ma bari moo tax lu am lu am Tuubaa rek kon doo dana leen daaru waaw Baye Cheikh lool ñu tàmbalee ko ba jotaat ci kàddu gi. jërëjëf. parce que ñu yéen a ngi ànd ak rajo Baol Média FM ci Mbàkke Baol Tabla Diaby 88 point cinq mooy fréquence bi bu ci kanamee dafay ubbi ligne bi ci 88. 828 19 05 ngeen waajal ko crédit lay doon nag du doon bonus du doon ligne 88 828 19 05 bu ko defee Baye Thierno Touré lañ dalal fii ci marché Mame Binta ci kër gi jàkkaarloo jumaay sëñ Cheikh moom sëñ Mountakha kon ñu fas yéene moom ci waxtaan bi nga xamante ne mooy ñeel màggal Tuubaa gi jàmm ja borom daaru nag li tax ñu tàmbalee ko moom la sëñ Tuubaa yebaloon ndar kon tukki ji lañ bëgg nga dugal na ci ak lépp. tukki bi bi nga xamee ne sëriñ koy def boo déggee buñ la waxee buñ la laajee taarixu màggal gi bàyyi Moussa Kanaan yaa saa indi an safa bi tafsimi yow ma xuróoji say xenal xatiimi bu la laajee sangu màggal nga xam ne mooy jëm Sëriñ Tuubaa génne woon Bari jëm dëkk ba ñuy wax Ndar waxal ñu ne booba Sëriñ Mouhamadou Moustapha ab taawam ak ak maam Thierno Birahim ak Sëriñ Mouhamadou Fadilou ba nga xamante ne bi si bu xam ndar jox na ko leer ñaar yoon Sëriñ Tuubaa moom du jublu borom waa bi defe ne dara ñëwut wala ndaam lañu xalaat ci ñun am digal lay déglu li saa borom jox na mu war a wuñ ci gaawu kon murit moom mel na ne gaawu jigéen ko ndax gaawu la sëriñ bi jógee Mbàkke Bari ba muy ñibbi gaawu la ñibbi boo demee ci téere naa ka sëriñ baa naa ci xalu jooy ilaa xaw mi na fi sama ma ko defal di fexe mboolem wërsëg ak jur yi sax ndax Sëriñ Tuubaa dafa yaatal moom daanaka mënees naa wax ne woo déglu ndax yàlla moom képp ku di julli la wax boo xoolee li muy ñaane li nga xam ne yaatal na ndax doo gis mukk mu wax ne nag ma defal murid yi julli lay wax wala mu ne waraa yaa man ci yaa an xawalin eratan samiida wala ilaha illa allah wala nag ngi dem wax ñu la xam sëñ moom Cheikh Mamadou Fadal dafa bari xorom lool te it ikam lay wax dafa ne suñu bàyyi ceeroon jàngal ba ne xar mu ba ne nër am nañu te sax mu yeenu ba jar waaye ku ñu jàngal yar jàngal ba ne yar ba ne moom mooy lépp rek waaw waaw. mel ne ñu leen ko xam yéen jarata rajo Média FM ci Mbàkke Bawol Tarbiya bi kaddu gi fii nag ci Daaru Minam ci pencum sëñ Cheikh moom sëñ Muntaxa jàkkaarloog marché bi Baye Thierno Touré la ñu dalal fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moom mooy màggal Tuuba kon mu mel ne sang bi bés muy màggal dafa mel ne bés ba mu doon somb la nga xamante ne mooy yoon wala ca mu yeboon maam Thierno ca Ndar. waaw waaw wax nañ ne ba mu yebalee maam Thierno ca Ndar yaakaar bi ko Sëriñ Tuubaa jox. te ko borom Ndar laajee ne ko yow yaay kan mu ne ko man maay Thierno Birahim wax nañu ne sax tubaab bi nee na ko borom Ndar ñun de Amadou Bamba lañ soxla mu ne ko man de maay rakab yi nga dëkk. mu ne ko ah xam naa sa magisaar yi xam naa daa ne bu la bëggee des na ndax ñun de képp koo ne ñi ñu ngi yebal yow te ko soxla mu ne leen maay li nga xam ne du ma yokk du ma wàññi ba xam ne ñu ne ba muy jox borom ndar lettre ba dafa dafa dafa sukk jox ko lettre ba mu ne ko ndax Amadou Bamba buñ ko wax dana ñëw mu ne ko bu rafet waaye nag moom dërub jóg ci ndigal yàlla man mi ne maa maa ngi loxoom ci man ngeen ma wax dama yokk dama wàññi sukk boobu sukkoo itam wax nañu ne bi mu del moom dara ump ko nee na waaw ceer na mu ne ko mbàkke mu ne ko waaw ba ngay jox borom daal leer ba sukk nga sukkoon moom dara jiw mu ne ko sukk nga day borom ndar ko yow mii yaa moom te laa ko defal mu ne ko daal Thierno ba nga sukkee boo ruy tëddikoon gaañ ma kon mel na ne soriwul nag na leen leer ne coow li bari na waaye maam Thierno Birahim moom am na ci sëñ bi loo xam ne soo soo foofa na ñu bari ndax nit koo bokkal lenn muy jur man nga ne sa nawle la bu dee xam-xam bu bari waaye ku ñu mu jàngal ndax doyloo mi ngi tàmbalee ci dénkum njaboot moom moo gën a foor ci nit kon koo dénk jàngloo ko te ba nga dikkee amoo ca dara loo naqari kooku na wax nañu ne bi sëriñ bi ñu gisee nga xam ne Daaru Muxti dañ Fallu Mbàkke moo ko andi ci fukki fan ak juróom ci baax la ñaar fan yi bañ gisee woon ca ca mbégte ma ñoom ñaar la woon léegi nag andil ko ñaari kaamil yoo xam ne bii Serigne Mouhamadou Moustapha moo ko bind mu doy waar benn bi Cheikh Mouhamadou Fallal moo ko bind mu doy waar Sëriñ Tuubaa ne ko Ceerno mu ne ko Mbàkke mu ne ana Mouhamadou Moustapha mu ne ko Mouhamadou Moustapha dama ko fay kaamil bii moo ko bind Sëriñ bi ne jëy tàmbalee ca Baqara xool kaamil bi tabaarikalla mu ne ko Ceerno mu ne ko Mbàkke ana Mouhamadou Fallal mu ne ko jëy ne ko Mouhamadou Fallal di bii moo ko bind mu tàmbalee ca Baqara tabaarikalla sëriñ sant na ko ma ne ko ceer na de man damaa yaakaar ne bu fekkante yaa ma ko yaakaar moom ma ko nii kon kon loolu yaakaar naa jant bu wér la waaw bàyyi xeex loolu jot nañ koo xam ba jotaat ci kàddu bi jërëjëf loolu am na solo lool waaye ginnaaw émission dañ koy tënk ndax dafa gàtt dañoo bëggoon li nga xamante ne mooy tukki bi nga xamante ne Seexul Xadim def na ko mu dàq bés bi nga xam ne ci la war a amee ay war a jële ji coono yu métti yoo xam ne ca lay amee ndam mu dàkk bis boobu di ko sant lan moo waral sant waaw cant moom day lu rëy fa sunu boroom ndax fi mu ne bés bi liñ ci war a Sëriñ Tuubaa de kenn mësu dégg mu ne na ngeen ma dimbale ci dara ndax juróom-ñaari at ñu tegal nga nekkoon noonu boo xam ne bëggul ci lu may faat sa bakkan ak loola métti ak loola mu mosu faa ñaan dimbal kenn ñii may lim lépp li ñu amam sëñ bi ñaanu leen dimbal ci da ngeen ma dimbali waaye nag bis bi de moom wax na ne su su amutoon kon de dara doom ndax wax na ne booba daal mi ngi mel ni daal ak moo xam ne xiif dafa am kenn amul loo lekk ñu defar saxam juróom defal ko kenn ba rafet sax mi dara nit ñi nag ñu mu rafet ni daraa ngi ci ko ñu jëpp xiif te fekk sax mi melagut na war a mel nee na bi ma demee ba ñëw nag mel na ne sàq mi dañ ko rokk si tepp ba ma yàttam siiw ku dikk bëgg ci waaw kon tukki moom boo mu ten dara du am ah, ci war a jànge mooy sant leen ma sama borom la sëriñ bi wax sant leen ma sama boroom moom la sëriñ bi wax sant nag dafa am daraja lool suñu borom ndax la in sakartum la azidannakum kon cant moom lu ah, bi nag nan ko góorgóorluwaat te jéem a xam di ko waral ndax ñi ci bëree bëri kat dañuy defe ne maanaam sànce sol lu rafet lekk lu neex rek la waaye loolu da ci la bokk waaye nag li gën a wóor mooy xam li sabab bi jàng alxuraan jàng xës sikar tudd yàlla berndeel gi ñëw na loolu lépp ñëw na waaw kon bàyyi seex loolu ba tey biir bi la bokk ci ci ci sabab jërëjëf ñu bokk na leen grand ak rajo Baol Média FM ci Mbàkke Bawol tablo caabi waaye kàddu gi tey mi ngi koo fii ci Daaru Minam marché Maam Binta Daaru ci kër Baye Thierno Touré jàkkaarloo ay sëñ Cheikh moom sëñ Muntaxa moom sëñ Jiw kon mbokk yi ñu ngi dégg ni Baye wax Baye dañoo bëggoon tam jëm ci ki nga xam ne dafa war a dalloo gan ginnaaw wax nga ne ñi ñëw bu ñu ñëwee dañoo war a dañuy xam ne mbir mi du bernde kese waaye aji ki nga xamante ne mooy berndeel moom loolu ko mën a waxal ci wàllu andi mi gal ak nun dala la ak nu ñuy taxee ak ngan du yàq ko bëgg nga ci ko jéem a defar te du ko mën waaw xanaa loolu moom lu wax li Sëriñ Tuubaa wax ci naaj bi ndax nee ci waxtaan laa xas gan nga génne sa kanam yaatal ko moo gën nga berdeel ko moo gën nga berdeel ko ndax nee doonte sax jëkkoo ko waaye nee bu nga nee salaamaaleykum ne ko waaleykum salaam bu fekkee dafa xat nga dem ko ree ko ne ko ah ñëw ngi ci sa kër gi lu fi ne rek noo ko bokk loolu lu yàlla araamal daal noo ko bokk ndax maa ngi leen di gan te du ngeen ko defar. ki nga xam ne tam mooy gane si am na sart yu ñu ko moom it. ni ni ni ni ni ki ñuy gane amee sart ni la gan gi amee sart. gan gi bu ñu teewee nga xam ne moom ah ñëw na ci bés bi moom it aw lay jël si. lépp loo xam ne lii gan ci ci gan ci bu mu ko bu mu ko bëgg bu mu ko xewee loolu faat faat gan la ah, ki nga xam ne itam dafa bàyyi këram di def nga xam ne man na million yi bu tax ne ma nekk diw laa boo ko xamal boo fayoon fanweeri bi ñu nekk boo xëy tànn mu tànn rek euh, mën a ku doon fop xaw ma bu amee étage wala bu mu ne diw mi ci néegum ña xam bii kat fi laa ko fekk kon kooka mënatu la koo fay kon dëkk mënut fay kan nañu xam ne lépp lu ci waay ñàkk ci sëriñ Tuubaa waxaat rek xam ko xam daawoon ko loolu moom ku dund ku dund màggal ko xam parce que sëriñ Tuubaa kat mbiram moom dafa amul tànk ginnaaw tànk kanam rek ndax ginaar na woon ba ci gëléem ba muy doog a tàmbali wax nañu ne ab ab aw aw bëy ba ko sëriñ bi ne nañu ko wecc ko bu mënee doon am xar kon loola bu dee dem dem dem ba tey ji gëléem bi tuddan yaakaar naa ne boo wér ndekk bi li ci dee ci gëléem xamee ko duñ toll sëñ Tuubaa nag yàlla dafa barkeel kàddoom ndax daraar tuddum ko ci gëléem koy dee dëgg la su ma tey jii boo waroon dëkk bi li fi dee ci ganaar ak li fi dee ci nag ak li fi dee ci gëléem kenn wul saxam lu solo waaye nag boo ko seetloo parce que xam ne kii dakaa toll woon ci ganaar ngir néew doole su ca dee saa da nga mën a gàtt su ca déwén saa da nga mën aw nag su ca déwén saa da nga def gëléem ba yàgg ñaan diwree na nangami gëléem maanaam yoonu Serigne Touba moomu sànq ginnaaw sànq kanam la am waaw. ñu fàttali ni ñu ngi ànd ak rajo Baol Média FM mu nekk ci Mbacke Baol tableau Dia bi samp fa ay reeram e Baol Média nag day décentralisé lu ne fii mu nekk nii kàddu gaa ngi bàyyi ko fii ci Daaru Minam de marché Mambinte ku bëgg moom xam naa ni bëgg a am kàddu yu mu laaj bàyyi mën naa 628 19 05 88 ñaari 8 ngay def 628 nga def 10 fukk 19 1 fukk 9 nga def 05 88 628 19 05 wala nga jaar ci 88 628 def 81 08 kon ñu laaj Baye Thierno ba tey rek eh, ci li nga xamante ne moo jëm ci màggal bi Baye Thierno li nga xamante ne dafa xaw a néew doole te eh, dëkk ay ndimbal loola amul. am na lu ci sëriñ bi xam ne yow xam ne xel li moom dina am ak booram. waxtaan ci suñu loolu mel ni tey nag loolu ñu bu baax a baax ndax am na ñoo xam ne fi mu buñ sax ci dëkk waaye ñoom bu ñu ñëw yàlla rek jàppaloo leen ko dañuy wax Sëriñ Tuubaa man kenn muy jàppale. ndax kenn barab am na ñu sax dañuy di defar dañuy fekk ndax dara baax fa. rey seeni nag tàngal seeni kak tàngal seeni meew di wax ay waay kaay ma naan loolu bari na Tuubaa kaay sarax ma lekk kaay sarax ma naan kaay sarax ma raggu bari na Tuubaa waaye am rek sama a ndax sëriñ bi dafa daj xam ne ci tukki ci tukki bi na moom rek ko ndax sabab si buñ la waxee mooy li nga xamante ne bii yàlla dogal naa mu def li ñuy wax xalwatu ci Daaru Xuddoos ba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam feeñu ko fi ànd ak gàngoor gi mandar bi waa lu Badar mu na waaye man daal li ma mooy bokk ci ñii Rasulullah ne ko ah lii de sopp nga sopp boo xam ne li yàlla bind moom amoo ci morom waaye bu ma moom da nga jàpp ci li nga am ndax doo ci dugg ndax néewaana de fii nga toll ci at ndax booba ñeent fukki atam des na ay weer te xol bu samaan bala koo kenn mat dafa am ñeent mu ne ko de des na weer loolu sax bu doon moom képp dinaa la ko ba nga am ñeent waaye bëgg ma nga dugg ci ba noppi day te te du mën a sotti ñu rekki la li nga amoon lépp yàlla parce que cofee ci man cofee ci man wér na mu ne ko man ngaa ci ñi laa bëgg a bokk ñoom bëggoon a bokk mooy ñan waa ba badar waa ahlu badar ñi nga xam ne ñoo dara rasul sallallahu alayhi wa sallam ñoo ñoo ñoo la wax ndax li mu am boo gisee moom ko ñëbatam dafa ndax dafa mel ne tey ku demoon ba ci banque ñu ne la banque bi kat mën nga ci am un milliard mu ne man de xeex naa un milliard bi laa bëgg a di ci tiw sëñ bi noonu lay ñaane dafa xër moo tax may niw ko doy na mu ne ko lii de boo ci duggee te mënoo ko parce que mu ne ko daal roogi daal moom dama ko bindul ba xam lu muy xàttan waaye lu roogi xàttan de ngor ngeen fi di moom àttan na ko mu yi nga xam ne moo nekk ci sóotu Bàqara yi def na la ko teg ci ma mooy natt buy bëgg a dikk maa ngi la mi daal di mën a ne ko yu bari mu ne ko yaari ba tey def ndax dëkk bii nga xam ne fi nga nekk di Touba yaa ne woon arrosant daw suñu borom aar ma ko suñu borom da koo aar nga xeeb dara luy nurum nag la fekk li ci teye mooy sama jaay ji nga xam ne moo fay ñu doole ku xëy ci Sëñ Touba la ndax moom maam war a dëkk moom maam jaara ko ñoo bokk mu xëy ci moom la te di wàllu yoo xam ne bu ñaanee suñu borom dina ko may mu ne ko sama jaay ji sëriñ bi li feeg mi ngi fii na naal moom du ko fekke dana ñaan mu teggi ko te bu teg ko bare loolu mën naa xam ne wax nañu ne at yi néew lañ ci lay tënk dem ba mu àtte bari mooy génn dëkk bi ndax bu génn dëkk bi da ko xeex moo tax dëkk bi ku fi dëkk war ngaa xam ne fi nga dëkk mooy fan ndax mboolem li nga xam ne sëriñ suñu sang bu baax bi mu Cheikh Mouhamadou Mountakha li nga ko fi tere laa asim ku xam doo ci laal dara ndax dëkk boo xam ne suñu borom daf koo aar soo fa nekkee lu ay bari bari bari bari bari Tuubaa moom digg ci am ku fi nekk nag ci li nga war a nekk moom bu soobee yàlla yow loo fi ñàkk tey baax na ma xam ne mooy gën a jàmm kooku waaw. léegi nag nga xamante na nga dem foofu foofu foofu la ma waxoon rek ay na daal loolu bokk na ci mbirum mbirum yoon bi. mu mel ne yéen a ngi FM ci Mbàkke Baol Tafra Jaabi kàddu bi bàyyi ko ci Daaru Minam de ñu dalal Baye Thierno Touré en direct yéen ko déglu 88 19 ñu ko rek ngir mën a bokk ci bon na mu mel ne duggoon nañ ci mooy ñi nga xamante ne dañoo néew doole néew doole war leen a mu mel ne am nañ ni dañuy topp yéen tot dëkkandoo ma yaakaar ne ñam yooyu yi topp yët ko dëkkandoo yi ndax bu fekkoon te ne bàyyi ceeb la dañoo jël na nga xam ne mooy ganaar wala ak ndawal jox leen ko euh, ñu toggal seen bopp bu gën a yiw waaw ñam woo yéen a ngi ko dëkk boobu. a ko aw kayam jënd wax moom baax na ko gën a sagu. lan a sagu mooy donte da ngay fab am xar waaye boo sax mu jublu ginaar jox ko mu rey ci këram aw ko rëy moo gën a sagu jëf li ci gën a sell gën jaawale moo gën. li ci tegee mooy ndimbal yi mi ngi am tubaarikàlla waaye dafa am loo xam ne bu ñu tax moom ci réew yëpp sax la xew moo ne ci am ñoo xam ne wax dëgg yàlla seen aajo ak wéex ñu xaw ko xam koo xam ne ci moo ko war a na moom loolu xam na xam ne lii nga xam ne yow yaa ngi koy soxla yow nga xam ne bokk ci ñëpp yow nga war a wëlbatiku yaa ko def tubaaroo loolu am na waaye loolu xam naa doomu aadama laa taxul mu gën waaw boo xamante ne war ngaa mën a def lii di ko dugg keneen di ko def nga fexe ba mu law ba àgg yow nga xañ ko ñeneen ñoo xamante ne nga ñu ko bi eh, ñi nga xamante ne ñu ñëw doole ba yerewoo yerwaan ñu leen digg bu xar di ko ñu loxo bàyceerlo mu mel ne gis naa ne safar yi gone yaa ngi koy waajal di safar di safar te am ci ñoom seeni poñ ma nga am bopp ay oto nga koy jaxar ci loru wala bu lëndëm ay làmp amu ko wala mu am diggante boobu ngay euh, ndax ko gën a war foofu. moo gën a war foofu ndax safar gi ñu boo ko xoolee xëy na lépp teraanga la waaye teraanga dañ ko def ndax bis moom képp koo xam ne bii fukki ko yeeg juróom-ñett yaa ngi loo am ci teraanga doy di jox waaye nag rey loolu ay doy ceeb na nga def ko fa ko def fa nga ko def wala naa ne jëndal ko juróomi benn xeer ak sa juróomi ndax dañoo wax ne yekk bi ci gën mooy yekk bu ne fet ci yekkal ko yàlla bu fekk nag mu na nga yekkal ko lekk bi ci dàq mooy li nga naka ba nga teew gan loolu la ñu wax waaye yekkal koo xam ne lii nga koy moo la ko ëppale moo la ko dàqal loolu amul change loolu loolu ko mën a weddi ko xam loolu na nañ ko ku ko mën a bàyyi sa bàyyi ngir yàlla nañuy def te yàlla tax mu mel ne gis naa ndaw ñoo xamante ne jaxran ci samay gët saa ko gis loo leen di dégg ñoom kat bu ñu dee laaj cotisation ci safar cinq mille daañ ko joxe bu ñu dee laaj mille francs daañ ko joxe wala ñu jël seeni bopp ak seeni bopp yi xelwaane ko ko jox ko te seen bàyyi gis ba joxuñu ko juróomi téeméer yu mu def ci gis bi ñu kër gi dëkk waaw naa leen yàlla ñàkk waaw wax suñu suñu borom ma wax ci alxuraan ah, bi ihsaan mais gannaaw bu yàlla sama àq jàllee man yàlla àq yi waajur moo ca tegee. ki nga xam ne dafa ñëwoon ci sëriñ Falilu Mbàkke ne ko damaa bëgg ne ko bayre jërul ñaan waay bayre na bayree. na bayree. waaw. waaye nag yëg ma leen ci loolu ñu def lu baax la wax nañu gën a góorgóorlu ci waajur ndax kat ku ne xam ne waajur ki nga xam ne diiru juróom-ñaari at mënoo dara sa bopp bi sa ko teg ko yoon lu bari bari sax ci xalaat mooy bu ko demee bàyyi ko sama njaboot dañoo wax ne guddloo fan gën la eh, nga ne eh soo demee ci daayira ba man de loolu di ay nax jigéen ñi tam nañu xam ne ngërëmal ngërëmal ngërëmal soxna yàlla da koo lëkkale ngërëmal borom këram ñoo xam ne soxli ndaw rek man ceen ay rëba man te gi ismaaya te bu sa borom beneen eh, daayira ak beneen seen borom waaw nga xam ne mbokk yi ñu fàttali ñu ngi ànd ak Baye Cheikh Gaye na daanaka waxtoom sax léegi mu jeex maa ngi wax moom na xam na dégguma Baye Cheikh waaw xam naa bu ko defee ñu ñu foofu rek euh, waaw baax na suñu parti bi yéen a ngi àndoon ak euh, Baye Cheikh Gueye Thial bëgg wàllu noo ko ko kon ma jox la taaj tàggu tool bi rek. waaw kon nag ñu ngi gërëm ñun yëpp ah wax ji dafa doy waar luñ ci wax da nga xam ne yow da wala jurut it ñu xam ne doomu aadama moom mën waaye liñ jubluwoon daal mooy lu baax. maa ngi ñaanal nag Cheikh Mouhamadou Mountakha fii yàlla yàggal ko lool di wér. maa ngi ñaanal Serigne Cheikh Mbacke moom Cheikh ko fi loolu ci wér moom kat mi ngi dox mi ngi nii woor mi ngi sant it Baol Média da doon rajo boo xam ne na ku bëgg a àgg Baye Gargaye mii nga moo fi nekk boo déggoo lu ma xaw ngeen di ñaanal kër kër ba ci ak ministère yi yëpp yàlla defal leen barke ci jaay man ay xaar boo sam kun xaar ak amiin yaa rabbal aalamiin mu doon bàyyi sax day jaal bëgg li nga xam ne jërëjëf Baye Cheikh Gaye Diall bëgg fàllu ñoo ko bokk bëgg ñu ngi koy njukkal bu baax te di ko sant ci liggéey bu rafet bi nga xam ne def na ko ah, ñu ngi koy sant bu baax Baye Cheikh Gaye Diall bëgg fàllu Euh, su ko defee rek euh, mbokk yi ci kanam tuuti xam naa ñuy jéggulu nag ci ñi ñuy seetaan ci digital bi jamono jii moom ñun waa mbakke wax dëgg yàlla moom waa Sonatel euh. waaw may jéggulu bu baax ma ne xam naa waa Sonatel moom wala waa Orange wala ñu mën doon rek vraiment réseau bi doy na waar trop trop trop trop trop trop ñi nuy seetaan ñëpp ñu ngi leen di jéggulu même rajo yi nga xam ñoo nekk ci biir parce que bari na rajo yi jokkoo ak Baol Média jamono yi dañoo am ay jafe-jafe pour jokkoo ak ñun ba dañu mujj jël sax euh, live audio bi xam nga live audio bi moom mën naa nekk kuy synchroniser mën nga jaar foofu mais euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy jël euh, digital bi pour mën a gisaale vraiment ñu ngi jégglu bu baax a baax vraiment connexion bi xaw na doy waar trop depuis vingt jours daanaka mënuñu mënuñu liggéey dara fi toll nii lu ci bëri dañ ko enregistré te xam nga ñun euh, système bi ñu enregistré day metti ndax